ñu sant yàlla bu baax a baax a baax parce que ñun dañoo génn Louga rek oto bi mu taw commencé taw quoi boo commencé taw léegi léegi ñuy daw quoi mais oto bi waa gi mën daw dafa bari nag quoi daw woon ndànk woon daw bu baax a a baax. doon daw waaw instant bi ba ñëwee nag ba tool ba ba ba jub Louga nag instant bi nag ci la commencé nag di kii quoi di baaje. di topp di tëj nag style bi quoi di baaje mënut lu maîtriser bi mënut ko maîtriser après nag ci yàlla def indi ndogalam quoi. ndax kenn ku ma laajoon mu ne dawul woon bu baax. da doon daw bu daw na daw na daw na daw na. Euh, ndax oto bi dafa surchargé wala. non non surchargé wul nag surchargé la yëpp quoi. ndomb la yëpp ndomb la yëpp waaw hmm. euh, dafa doon daw lu baax mu jékki si yàgg. waaw waaw mu def tonneau mëntu amatul contrôle quoi mëntu mëntu tee oto bi. dajewu leen ak non non non dajewu leen ak dajewu ak dara. dafa daw ba xalam daw rek ba ba këpp quoi. pneu pneu yu féete kaw quoi. waaw mais nag gars yi daanaka ñu sonn ñëpp affaire gars yi dañu yéex a ñëw quoi et puis même ambulance sax ñëw nañu vraiment mais loolu wëlbati oto bi giri bu ko wëlbati mooy seen doon seen problème ñoom jéem nañu seen seen oyo pour ñu mais affaire bi attunu ko quoi daanaka ñoo xam ne blessé yu bëri comment dire xanaa loolu yàlla dogal seen seen jaar ci quoi. oto bi bi man Ross Béthio laa ci yéege quoi. Ross Béthio laa waaw. waaw parce que parce que gars ba mu yéege ci oto bi apprenti maa ngi ko laaj quoi naan fu mu mais waaw am na fa la jógee waaw. yow Ross Béthio nga man Ross Béthio laa ci man man ak ak sama juróomi mbokk law be quoi. Hmm. ba ñëwee nag ba tolloog euh, ba ñu yéegee léegi ba trois yéegee. ba ba ba ñëpp cinq yéeg yi après ñaari ñoom am place quoi. ñaar ñoo am place. léegi ñeneen trois yi amuñu place ñu ñëw ba ñun nañ leen fëgg ñu wàcc quoi. Hmm. léegi man nag man saa amoon place dama toogoon noonu rek a côté.

yàlla dogal xanaa loolu yàlla dogaloon. dafa am benn famille bi naan dafa demoon xew yooyu benn famille ndax loolu am. waaw dégg naa quoi am na koo xam ñoo toogoon sànq quoi nañ demoon ceet quoi. Mhm. daanaka ñu bari dañ seede seede seede am na benn xale bu jigéen boo xam xale bu ndaw la war mhm. ko mhm. waaw benn xaritam ko benn mbokkam boo xam ñoom bokkoon fu ñu doon nekk doon def rajo moom moo ko wax quoi moom vraiment moom ñàkk na bakkanam quoi. tey boo doon ñaax euh, chauffeur si lan nga leen di ñaax. waaw xanaa ñu def ndànk rek daw ndànk daw ndànk rek parce que jàmbur la ñu dox quoi mais li vraiment c'est trop accident yi bari na trop trop nit ñaa ñu def ndànk rek te yàlla rek tax ndax vraiment dem mënul ñàkk waaw ndax ba ngay def accident li ñu yóbbu oto yóbbu la kon mënuñoo tàggoo oto waaye ñi nga xam ñoo yor ot yi nañu ànd ak seen xel ànd ak dal ànd ak yar ak teggin jàmbur la ñuy dox incha allah jàmbur la ñuy dox lu même bu doon safaan sax da nga war dox asumaak ba muy